ten bi nak suñu ben mbokk mom moko financer financer ko aussi ci bir koor gi bañ na ba gis nga ten bi mi ngi ko tuddé ramadan maanaam ci biir koor gi la ko la ko def def ko ngir defal ko waa dëkk bi ngir teen bi su paree am ndox ndox bi mën a jëriñ waa dëkk bi léegi nag sarax boo xam ne aussi dañ ko def ci biir weeru koor kon nga gis ne dañ koy fulandi ndax ñëpp xam nañ ne koor weer la woo xam ne weeru promotion la yàlla sonta dafay dafay dafay fulandi jëf yi nga xam ne moom la jaam def muy weeru koor na ko yàlla fay nangul ko jëf ji nga xam ne moom la def aussi mu dëppook li nga xam ne moom la ci jublu ba def ko Euh, te it euh, dañuy wax suñu sœur bi na sant yàlla te xam ne koor gi maanaam jeexul fekk teen bi commencé woon na am dox commencé woon na jëriñ nit ñi kon premier guddo yi nit ñi commencé woon nañ ko naan ci biir koor gi kon amaana koor gi ci boppam maanaam am na ay nit yoo xamante ne ndox mi dimbali leen pour ñu dog seen koor yàlla na ko yàlla fay ci jëfam jooju ki tax ah yéen ñi nga xam ne ci seen loxo la jaar ba ñëw ci ñun yàlla na leen yàlla fay parce que nit daana yéene am fim mu ko jaarale teg ca fam ko jaarale ñooñu seen yéene du mot buñ def ko ni ni mu ware mais ndok ni ngeen ni jaar seen loxo yéen itam seen xol tali ngeen am yéene pour tasaare ko ba ñëpp jot ci yàlla na leen yàlla fay amiin amiin na tuyaaba bi boroomam jot ci est-ce teen bi bi mu bonee fi ndox mi yemoon ba fi mu nekk nii presque lii moo tax ngeen fekk ci lii mais dañ ko ma eh, attaqué ndox mi daal doyul preska ni ma ko mën a waxe waaye nag am na ndox boo gisee mu weex ni bot boobu eh, moo suuf si muy pousse ni muy ñew mo waral couleur bi mais ndox mi mom amul beni jég euh, sik neex tubar tubaar fukk la neex na tubaar fukk la neexaayu ndox rek fi la mën a yem moom wex gi ngay gis ni nak bot bobu suuf si muy pousse mo waral mu wex ni mais dina mos deñ inshallah dina deñ jafe-jafe deg la ñu gis nga kër ye ngay sé rot batay gis nga mangu yenne fee dencaaroot ba tey waxatuma amatuñu woon ndox ci guddi gi ci bëccëg bi la ñu doon root waaw waaw lii ngeen def yàlla rek moo ko mun a fay yàlla rek moo leen mun a fay yaa ngeen man de maa mun a sori ci wax waaw jaajëf. ndax root bi sori woon na dañuy dox ba sonn doog am ndox mais say moom alhamdulilah yàlla baax na daal xanaa leen sant leen gërëm rek.

Mais il reste des finitions à faire. Et Inch'Allah, bientôt, euh, on pourra venir euh, le faire bientôt, Inch'Allah. en espérant que euh, cette eau euh, va profiter aux populations dans les alentours, Inch'Allah, pour leurs besoins quotidiens. Inch'Allah, à la prochaine et euh,